dañuy politique gis nga réew mi su fekkoon ne ñi ñuy jiitu discours yii la ñuy tenir senegal tàkk na ba jeex ay mag ñoo fi nekkoon fi sen deret touru fi pour Senegal am indépendance moom boppam ay mag ñoo fi taxaw di xeex jamonoy Senghor ba tey pour que ñu tabax ay école defar ay hôpital ba tey ñun ñi nga xam ne nekk ci langue politique bi ñu mën a jaar ci école politique yooyu école publique yooyu jàng ba mën am suñuy lijaasa kon li fi mag ñi baax bàyyi ci lu baax ñun suñu génération ak ñi ñu gën a féete ndaw dañu ko war a gën dañ ko war a gën dañ ko war a gën a pour un oui pour un non nga ne génn leen ci mbedd mi tal leen dëkk bi di woote à l'insurrection ba pare naan je l'assume c'est pas responsable je dis fukki xale ak ñeent dee nañ en mars 2020. mille ku ñàkk est-ce que ñoom ñoo ñàkk. ñoom ñàkkuñu ñoom ñu ngi ak seen i doom ci seen i kër waaye ñi nga xam ne seen ay wayjur seeni i doom a dee wayjur yooyu ñoo ñàkk seen njaboot te dañ ci investiroon amoon ci ñoom yaakaar kon wayjur yi nañu tey xale yi nañu wax ak xale yi politique du invective politique du saaga politique du ay kaañu xeex kaañu taal gënoon na fi metti lool gënoon na fi metti lool mais Ablaye Wade dafa mës di wax ne du ma mës a jaar sur des cadavres pour accéder au pouvoir mais filles Sénégal la femme trajectoire réunie. pourquoi la jeune génération qui est ci la politique bi bëgg fait par la violence mais nous disons tout. ils auraient pu avoir la même démarche tey ils ont def nañ ci yoon wala moo tere Ils ont ba dox wax yow la raison conseil constitutionnel bi da wax fa deug yalla dugg na fi genn fi waaw ministre de l'intérieur intérieur def na liggéeyam ak service yow nga ne ando ci dem nga ci yoon do doo bàyyiwaat yoon boobu ñëwaat wax limuy wax lu tax nga bëgg a mettre de la pression ci yoon wala jema terroriser yoon wala terroriser ay magistrats terroriser ay journalistes terroriser des acteurs de la société civile ba yow li nga bëgg mu am ci réew mi rek mo fi am waaye nañ leen ko sétane nak parce que ce Sénégal là a existé avant nous tous ce Sénégal continuera d'exister après nous tous dañ ko war a seetaat te loolu damay wax ni ku ci nekk ci réew mi am na ci taxawaay ñun homme politique am nañ ci taxawaay société civile am na ci taxawaay mais yéen aussi taskati xibaar yi am ngeen ci taxawaay